Miro wala naka fintoon nii naka Diomaye ak Sonko ab départ boo xamante baaxul lañ dal def ndax booy xool ba ñu faloo ak léegi ñuy jàppagum bëri de yéenekaay bi mu ngi xëy di ko lim bokk na ci Bougane Gueye Dany bi nga xamante ni ji war na wuy di yoon yéenekaay bi ne fintoon yi lii raam ca jëm révélation yéenekaay xëy di révélé nee naka convocation yi nga xamante ni jamono ji moo ngi na coboy le régime naka daanaka ñoom lañ doon bañ ak lañ doon xeex daanaka booy xool loolee la yéenekaay bi ne loolu la de convocation ndax trafic politique yéenekaay bi ne fi ñu toon ni gaay lañ ko de ndax dañu waxoon ne nag dañuy xool ñi sàcc alalu réew mi nag ñu jàpp leen waaye fi ñu ñi nga xamante ni ñooy wax ci réew mi la ñuy jàpp ndax booba ak léegi ñi jàppagum ñëpp lañ leen di jàpp yoo xamante waruñ koo wax jëmale ko ci nguur gi ñuy leen ciix yóbbu yéenekaay bi ne naka fi ñu toon yi fa ñu jëm a ca bax ca baxi te waxuñu ci yéenekaay bi ne ci wax ñu nekk naka di wax ci loo xamante ni daanaka du apporter réew nga xamante ni Alioune Tine yëkkati na ko foudrage mer dëgg la def ndax jàpp na ne fi nguur gi fi ne ah war na moytandiku nag moytandiku li nga xamante ni ci moo fi nekkoon ci nguur gi de jàpp sa doom làq jël doomi dàmbur dóor yéenekaay bi ne fa yeggee nag mbir mi dina yeggi ci lool ba jafe-jafe yéenekaay bi ne boobee jamono nag courant yi dëkkee coupé lépp nag fintoon yi daanaka ñoom coupure bi foofu la gën a méttee booba ak léegi nag xuy xuy xamat xamat lañ dëkkee waaye nag lu mu ci doon lu ne nag yéenekaay bi ne nag la terreur dëgg moo am ci réew mi de ndax c'est les opposants Diomaye ak Sonko ku wax rek ñu daal di laay yóbbu ndax boobu ak léegi nemmeeku nañ ne arrestation yi ñoo ngi tàmbalee bari lool tribune yéenekaay ni ak Bougane bi nga xamante si dañ koo convoqué ca cybercriminalité Bougane Gueye Dany moom i nag la mu duxoñ baaraamu tuuma mooy rek ay manœuvre yu nga xamante ni Sonko moo ko daal dee teg ndax jàpp ne lu njiy njàkk mooy mooy njàkk moom Ousmane Sonko moo ko bëgg a annulé moo ko bëgg éliminé waaye dëgg la ndax boobu ak léegi arrestation yi ñuy dund daanaka ab bëri na loo xamante degul si yoon de tête de si élection législative yi Macky Sall pari risqué l'héritage de APR fortement critiqué ndax Macky moom fi bu présent sur terrain du doon ab échec wala déet Walf Quotidien ne fi mu réew mi ndax daay delloo ginnaaw ndax boobu ak léegi li ñu gis naka ci li nga xamante ne si mooy démocratie bi ak arrestation yi nga xamante ni lool Walfadjri koy teg nag di ko doxal fi mu ne du neex législative yi du nar a neex de ndax nañu war a defaree liste yi ak coopérative war a dugg bëri na lool yéenekaay bi naka di enquête xëy na enquête boo gis ne huit huit virgule cinq cent millions yoo bulletins yoo xamante war nañ koo confectionné ci quarante cinq liste yi nga xamante ni ñoo bëgg a dem ci yooyu élection législative yéenekaay bi ne gën caa tuuti dina coûter treize milliards yoo xamante ne si war nañ koo jukke ci mbir moomee te loolee moom dina seer lool ci état bi de ak liste yu bëri waay boobee yéenekaay bi ne ñu xaarandi ba xam décision finale bi fan laay ak liste ak liste yu bëri yooyee le quotidien di wax waxu politique nag ak ak arrestation ak jàpp ak bàyyim boobee jamono naka foofee ca dande maayo bi naka amatuñu baat baat bi ñu amatul nag ndax lañ leen desoon nag ci seen digganteeg réew mi naka ndox mi ne na ko teppi dagg naka moom ndox moomee naka di dex moo fees bay wala ngaan nag uuti te loolu nag am na jeexital yu doy waar ñu xamante ne si lalu na ci wàllum wér-gu-yaram ba noppi waaye itam askan bi la ñu war a dundee jafe-jafe dëgg la cay Sénégal li ñu war a wax duñ ci wax mukk politique rek mbir maa ñoo ko déggandoo jàngeen jof ba ëllëg